leen baalu àq ñu fas yéene ñëw faram-fàcce leen xibaar bi ci kàllaama ko ci xibaar bi nag moo ngi bàyyi ko ci waa Sénégal waaye tamit waa RFM xam ne nañ ko te xam le ni kii di El Hadji Daouda Faye nekkoon fi euh, ministre des sports moom la ñu wax moo fi bàyyeekoo loolu nag euh, xibaar la bu bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Sénégal ñun indi leen ko fii di leen ko jot liwaat moom mii nag di euh, laa Hadji Daouda Faye pour ñi ko xamul Euh, ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi euh, liggéey stade bu Demba Diop bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee ancien maire bu mbuur te ñu woon ko fële sa Thiès moom mii nag euh, bii ba nga xamante ni dugaloon nañ ko ci jongante bi doxoon diggante Sénégal ak France mu doonoon matsu xaritoo moom mii moo dugaloon bii boobu xam naa ne nag jamono yooyu ñun mën nañ koo bañ a fekk waaye l'histoire ne ment pas boo toppee histoire da indi lépp loo xamante ni moo xew ci jaar ci loolu na lañ si doon dolli rek pour ñu xam ni wax dëgg yàlla jàmbaar la woon ku bëggum Sénégal la ñu koy ñaanal yàlla na firdaw si doon dëkkuwaayam yàlla na dee di noflaayam